Bienvenue sur Salam Vision. mbokk yi ci Salam ci ginnaaw bu ñu leen nuyoo kontaan ci ànd bi ngeen ànd ak ñun. yeewoog tiis ak naqar fas leen neen xibaar xibaar bi nga xamante ni sax neexul benn yoon ñu koy yëkkati suñu kàddu waaye dafa fekk ni yàlla bu ne waaw jaam bi danaan waaw yàlla moo sàkk jaamam saa yu ko soxlaa da koy jël ki nga xamante ni mooy Serigne Modou Niang di promoteur ñu koy wax le promoteur des espoirs dañu yeewoo tiis ak naqar jam ci moom dafa daal di génn àddina suñu borom moo ko daal di jël moom nag gëñoo nañ ko gis ci làmb ji lool ndax ab feebar bu ko tëraloon la lu yàgg di li ñu toppandi waaye jàpp leen rek ni suñu borom jël na ki nga xamante ni moom mooy Serigne Modou Niang ñu koy jaale bépp euh, promoteur bépp sénégalais ndax moom ñëpp xam nañ ko bu baax a baax ñu koy faral di wooye le promoteur des espoirs ci dal ba ci maanute ba waaye tamit làmb ji nga jënd ko gis lool à travers ay journée yi nga xamante ni da koy faral di tëgg di euh, faral di fësal xale yi nga xamante ni ay xale lañ nekk si yoon ñu baree bari daal di jaar ci loxoom sans limite ci sama kàddu mi ngi koy jaale ay mbokkam ak bépp sénégalais Bienvenue sur Salam Vision.